ak pas-pas bu kawee bu ci nit ki mën a am ak lum bari bari bu fekkente ne bii ne teguwut ci xam faw rek ay yàqu-yàqu rax ca te boroom mën na koo xam mën na ko bañ a xam ci loolu itam la la ñu junje yeneen baat yu bari yum wax yu mel ni ci yeneen i téere nam ko waxe woon ca Tazawudu Shubbaan ne ku leen tere sàkku xam-xam na ngeen xam ne mooy kuutaayul seytaane ci kaw suuf lépp lu seytaane doon yàq rek moo ko wuutu ci di ko yàq te moom moomee di tere nit ñi xam-xam wala mu di ko woyefal na xam ne ëllëg sunu borom dana jëflanteeg moom ci jëfam joojee waxaat ca téereb zaadu zawi taallum wax ne képp ku leen tere sàkku xam-xam na ngeen xam ne daf leen a nar a rek jëme leen ci loo xam ne ay fitna ki jafe-jafe la leen di jural tey ak ëllëg kon dayo boobu la wax ne xam-xam am na ko muy loo xam ne lu mënta ñàkk la ci képp kuy soobu yoonu sunu borom képp koo xam ne sunu borom mooy mooy yitte mooy bëgg-bëggam ndax sunu borom daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko jaamu googu ñu bind nag ngir loolu faw war nañ koo def waaye buñ koy def. faw ñu xam niñ koy defee ndax jëf ji moom jëmmi jëf ji rek amut solo la ca jiitu mooy war koo xam ni nga koy defee mooy tax boo ko defee man caa dajeg la ci bëgg a dajal tey nag mu tàmbaleeg ñun ci wax ne fal ilmu wal amalu jawharaani li xayrayi daarayni yajlubaani wa ashrafu l aslayni ilmun quddima kama ataa bihi xadithun qad sama id kullu aamilin bila ilmin yura fa saayuhu mitlu habain nusira wa man xawaa ilman wa laysa yacmalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu wax ne kon tey fi mu wax mooy xam-xam ak jëfe ko nim doone ñaar yoo xam ne dañoo taqoo dañoo ànd benn mënu cee dem bàyyi morom ja faaw ñaar yëpp la ñu war a boole doog a mën a tege ci yoonu njub mu wax ne xam-xam ak jëfe xam-xam ñaari mbir lañ yoo xam ne seen solo foo ko takk weesu na ko daad ne ñooy ñaari mbir yi nga xam ne it yiw wu nit mën a am ci àdduna ak àlaxira ñoo ko koy mën a may mu wax ne waaye nag biñ bokkee doon ñaar yu am solo ba noppi it bi ci ëppaat solo ci buñ xoolee buñ war a jiital doog caa teg ba ca tege ci nuñ ko war a toftalee mu ne buñ xoolee ci anam googu xam-xam mooy bi jiitu ndax balaa jëfa am xam ni ngay jëfe daa war a am ba noppi mu ne te loolu xadiisu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko wax daad ne te lii firndeel wérug wax jooju moy ndax jëf jum nit mën a jëf wala képp kuy jëf kum mën a doon ak jëfam ja lum bari bari bari lum ca am am am pas-pas ak jublu bu fekkee ne tegu ko ci xam jëf ja mën naa mujj doon pënd buñ jër rek loo xam ne doo am njariñ ndax na koy defee mooy indi ay jafe-jafe daal na waaye it nag xam-xam it nag doonul ne moom it dañ koy wut rek denc ko toog waaye buñ ko amee ba noppi daa am lu muy jariñ mooy ñu jëfe ko ndax it képp ku yàlla taw féexal ba nga am xam-xam itam nag waaye nattoo na la jëfewoo ko yan ca lu musal buñ la doon misaal manees na laa mbaam muñ sa loolu misaal la moo xam ne alquran moo ko joxe misaal moo ko moo ko ci suratul jumaa kon xam-xam munta ñàkk ci bu yoonu sunu boroom munta ñàkk ci sax ba ci jullit bi bëgg doon jullit bu bu bu yamambaay rek maanaam xam nga ndax jullit ñi ay tolluwaay lañ yaakaar naa waxoon nañ ko fi ay fan ci gannaaw li munta ci nit ki mooy doon ab jullit waaye bu doonee ab jullit ba noppi yitteem fu mu toll loolu moom nit ñi duñ ci tolloo am na koo xam ne moom li bëgg mooy doon jullit boo xam ne rek moom daal nay jéem a jëfe kem kàttanam bu ëllëgee bu mu gis mbugal na mucc dugg àjjana loolu rek la bëgg loolu nag ñi ëpp ci julli ñi daanaka foofu lañ toll tolluwaay boobu lañ toll mucc rek lañ bëgg a def ngir ñoom seen yoon nekkul ci ay yegg ci yàlla ay xam yàlla ak yooyu yitteel leen liñ bëgg rek mooy nañ fi nekk di julli di woor di def lu baax luñ man buñ faatoo sun borom yërëm leen ñu bañ gis mbugalum bàmmeel bañ a gis mbugalum ëllëg dugg àjjana loolu lañ bëgg lépp ci julli ñi loolu lañ bëgg foofu lañ ne ak man mii kay fi laa nekk léegi loolu yitte la waaye nag yitte la joo xam ne ju suufe ndax am na ay yitte yu ko gën a kawe yitte ju ko gën a kawe nag bokk na ca koo xam ne dana gannaaw bu doonay loolu ba noppi moom daa bëgg ci àdduna ji mu nekk balaa fee jóge balaa bisama ñëw mu fexe ba tolluwaay ya gën a kawe yuñ mën a am ci suñ borom yoo xam ne mën na koo am mu jéem koo am kem kattanam te soobu yoon wak koy may loola tax mu dem gëstu ji nitug yàlla ko ko ca mën a yóbbu ba am ko ànd ak moom tege ci loxoom ngir mu womat ko jëmee ko ca foofee loola yitte ju kawe la bu ma koy misaal mooy yitte ja nga xam ne moo taxoon a jóg lu bari ci sun maam ya àndoon ak sëriñ bi radiyallahu anhu ci njëlbeenu gooteem ndax ay julit lañ woon ña ca gën a bari xaj na ca mujj wala yooyu waaye njëlbeen gi moom ñi doon wuy sëriñ bi ñëpp ay julit lañ ay julit lañ ñoo xam ne ñëpp seeni maam sax ay jullit lañ waxuma laa ñoom am ci ñoo xam ne ay doomi soxna lañ boole ci jàngoon nañ xam lu bare bare bari doog a ñëw góorgóorlu ci lu baax ba tey doog a ñëw waaye nag dañoo bëggoon a weesu doon jullitub kese dañoo bëggoon am cërub yàlla balaa ñu fee jógee loolu lañ bëggoon loolu nag yitte la faw nag kon am na njëggum laaj pour man koo am yitte jooje nag ku ko am moom it du ne rek damay jóg rek dem ci nutug yàlla rek waaye xam fi ma war a jaar moom amu ci solo déedéet bu demoon ba jàpp na noonu la war a demee ba def ko it bu ñëwee ci nitug yàlla ka mi jox boppam nitug yàlla kookee daa bokk ca yoon wam ko njëkk war a njëkk a sóob mooy fexe ba mu xam li mu war a xam li mënut a ñàkk ci moom loolu waxoon nañ ko fi barki démb te sëriñ bi wax na ko jëfe na ko waxoon nañ fi ne nim mu doon doxe mooy képp ku ñëw ci loxoom jox ko sa bopp bu dee koo xam ne am na lu des ci xam-xamu diine am lu mu war a xam lu mënta ñàkk ci moom da koy yóbbu jamono jami jàngaleel boppam da koy jàngaleel boppam bu dee jamono jëm sampee daara yu koy wutu ci njàngama it da koy yabal ca daara yooyu mu nekk ci njàngama ba xam la mu war a xam doog a ñëw ci tërbiye gi ngir yegg fa mu bëgg a yegg bu dee ndaw loo xam ne moom daa toll ci war a jàng alquran ca daara alquran ja lañ ko yóbbu mu jàng alquran bu fa jógee bu yàlla la ca dib cëram mu am ko bu ca jógee doog a ñëw ci daara ja jàng xam-xam mu jàng xam-xam doog caa jógee ñëw ca tërbiye ga tërbiye loolu sëñ Tuubaa keroog ba mu tàmbalee woote ba bis bi mu génnee àdduna doxin woowu moom mosu koo soppi ak jamono yëpp nag mosu koo soppi jenn jamono bokk na ci sax leetar boo xam ne yónnee na ko maam Thierno boobu mu ngi ci géej gi. bokk na ca lam koy fàttali waxtu wu nekk loolu te mooy ñi toll ci war a jàng nañ leen taxaw ñu jàng ñi toll ci ñu war a yeggale seen tërbiye ñu yeggale leen ko te noonu la ko doon defee itam ba looloo jur bi bi jógee ci géej gi tàmbalee ko ci njabootuk boppam gi muy ay doomam ñim ci bàyyi woon ñu toll ci jàng alxuraan am na ci ñoo xam ne bi mu yegsee daje na seen alxuraan noppi ñenn ña toll na seen alxuraan seq nañ ci ay jéego njabootu taalibe yi nekkoon ak moom it te ci noonu ba tey noonu kon doxin woowu moom mosu cee jóg jenn jamono ndax mooy doxin wu jub wi du lu mën a soppi ko moo tax mënut a soppeeku waaye itam nag julit bi nga xam ne it julit bu ordinaire la nga xam ne moom ay cir yàlla ak yooyu tax koo jóg it daa bëgg a mucc ëllëg rek mu jeex kooku itam ba tey xam lu mënta ñàkkale ci moom kooku yétit xam lu munta ñàkk la ci moom ndax xam li munta ñàkk ci sa diine moom niñ ko faxoon barki démb day waro gar wow ni nga xamee ne warugaru julli wàccut kenn li fekk mi nga ànd akum xelam ni ku noonu itam xam lu li munta ñàkk ci sa diine it warugaru mu kàllaf la li feeg mi nga ànd akum xelam wàccut kenn amul góor amut jigéen amut fii laa bokk amul faa bokk amut yar nañ ma ci amut yaruñ ma ci amut itam ba ma doonee ndaw sama baay jàngaloo na ma diine wala jàngaloo ma ko bu la ko jàngaloo wutit ba nga dem ba doon mag xam-xàmmee itam yaa war a jéem a sauver sa bopp donte na nag lii cosaan mooy waajur moo ko war a defal loo doomam ca ba mu cay tolloo ndax waru garu waajur la waru gar la wu diis sax woo xam ne diisaay bu foo ko takk weesu na bari waan a koog góor-góor na lu bari ci diineem ci def lu baax ak jaamu yàlla ak jub waaye ak njabootam moom jàngaloowu leen seen diine li munta ñàkk jox ko benn yitte da leen bàyyi ci kër gi noonu rek bu duggee école tubaab ba jotee mu yóbbu leen ñu dem jàngi école tubaab ba mu fexe bay contrôler seeni résultat seet lépp fu mu toll sonn ca lool boole koog añ du manki reer du manki ndékki du manki colgaag dara ba ca argent de poche ba ñu yóbbu ca école ba waaye nag ñu mokkal yenn saar ci alxuraan xam seen faratay diine yi mënut ta ñàkk loolu moom yitteelu ko ndax jàpp na ne du du lu war dal wala daanaka amut solo soosu loolu ñu bari ci ñun taxawaay boobu la ñu am kooku nag kër kër jëme kër këral boppam ci lu baax ak lépp teewut loolee bu ca delluwut gannaaw bu yemal xiyaamee dana ko indil jafe-jafe ndax njaboot ya seenu ñàkk a xam li ñu war a xam ci diine moom mooy responsable bi bu ëllëgee moom la ko suñu borom di laaj ndax bañ ca tollee ñu waroon leen cee teel a tàggat moo leen ci tàggatut moo tax alxuraan wax nañu ne bari na ñooñ yow ëllëg yemal xiyaam def nañ lu baax lu ne ay responsabilité ba noppi jàppoon ne seen yoon nekku ca moo leen di gàllankoor boo ëllëgee dañuy dem a dem te leen ba ñu leen dem leen dugg àjjana dem a dem ba ca yoon wa ñu na ndax seen mbir lu ñu war a lijjanti ndax am na gaa yu taxaw fii mënuñoo jàll te la yeen cee mën a ba ku jiite ku am war nga cee bàyyi xel bu baax a baax ci say njaboot fexe ba li mënta ñàkk seen diine ñu xam ko ndax doonut lu lu ñuy maslaa doonut lu ñuy lu ñuy jëlale kon loolu mooy wane ne xam-xam kon lu mënta ñàkk la ñëpp a ci yem ak ku mën a doon waaye nag bu nit ki xamee ba noppi it mu ne faaw mu xam ne it xamit nag jëfe ko tax a jóg ndax xam du lu ñu xam ngir rek xam rek waaye dañu xam ngir jëfe looloo ko tax a jóg sëriñ bi nag buy wax xam-xam ndax léeg-léeg nga gis ñoo xam ne ni ñuy waxee ci wàllu xam-xam bu ci sëriñ bi wax ak buy wax ci wàllu jëf ñu dégg ko déggin yoo xam ne ay njuum te dañ ci am ndax léeg-léeg xam-xam bi ñu jël ko yaatal ko ci anam gog sëriñ bi moom daa am lu ko tax di wax mooy buy wax xam-xam ak coona bi mu ciy daj ak di ko ci daj lu lépp li tax muy wax nag mooy xam-xamub diine moo tax muy wax loolu ma taxam la xam-xamub diine moo tax muy wax waxut xam-xam ba nit di xam ngir tabax wala ngir defar ab tëli walla yooyu yëpp ay xam-xam yu baax a baax la yoo xam ne yu ñu munta ñàkk la ci dund gi waaye yii muy wax moom la ci jiitu mooy xam-xamub diine moo tax muy wax teewul nag ubbi na bunt ci maxaaliqu niiraan bi ca kanam danañ gis mu wax ko wa kullu ilmin bi manaafi'a ya fii waaye loola ci ñaareelu dégare la tolloo mooy xam-xamu diine bi moom li mënut a ñàkk ci sa diine faaw da nga koy xam ba noppi boo ko xamee ba noppi nag man ngaa dem spécialisé wu ji ci xam-xam boo xam ne ci jagal sunu dund la bokk nga dem féeteel fa sa xam gën ko caa xóotal loolu lu mën a nekk la. doonut sax lu man a nekk yem ci waaye lu war a nekk la daa war a nekk daa war a nekk ndax xam-xamu diine bi it doonu nañ ñëpp dañuy jóg rek dem jàngi diine mu jeex booba buñ feebaree duñ faju buñ bëggee jaar ci ay yoon duñu am ku ñu defal tëli yu baax yuñ mën a jaar ci yoon buñ bëggee defar jàkka nii duñu am ku ñu ko tabaxal bañ mën feene ne ak yëpp rek mboole mi soxla ci dund gi moo tax lu mënta ñàkk la waaye nag faw ñu xam ne bu ñuy wax moom li jiitu mooy xam-xamub diine ba noppi leneen lu cay tegu tegu ca xam-xamub diine bi it jubluwu ci xóot ci ba yegg ci géeju ci ndax loolu moom du mbirum ñëpp ñëpp amuñ préparation man loolu am na ñooñ buñ doon jàng xam-xamub diine ñaar fukki at it yàlla mayu leen xereñu ñu man caa xóot genn xóot gi te mën naa am bu ñu ko defoon ci yeneen xeeti xam-xam yi genn wàll ga rek ñu xóot ca ba yegg ci dayo kon moo tax xóotal gi genn gi moom jamono ju nekk rek war naa am mbooloo mu ko man te def ko wuutu ca ña ca des ndax loolu mënta ñàkk la buñ soxlaa yenn masala yu xóot yi ci diine ñooña man koo tontu man koo lijjanti waaye nag li tolloog farate yi mënta ñàkk moom loolu moom kenn ku nekk sa waru garu bopp la wax da nga ko war a def boo ko defee ba noppi nag yeneen xeeti xam-xam yiñ soxla ci dund gi mën ngaa dem féete ci xóotal ca ba yegg ca dayo boo ca mën a yegg ngir saa yu jullit ñi soxlaa loola yow nga mën a taxaw man caa féete jullit ña ca wet googa loolu borom xam kifaaya la mooy mboolem xam-xam yi ñu soxla ci dund gi xam ko ba xereñe ko lool ba luñ ca soxla ñu mën koo taxawe ndax bu amut dana am ak manki dana am ab jaxasoo goo xam dana am ci dund gi te boobaa kenn du ko mën a saafara bi ñaareel bi itam mooy baatu jëf bu ko sëriñ bi wax muy al amal léeg-léeg ñenn ci ñi jàng arab te xaj na léeg-léeg duñ seetlu sëriñ bi ay baatam ñi koy jëfandikoo maanaam ay conceptam xam nga boroom xam-xam yi dañuy am yooyu lakk wi ñu waxee muy lakk arab misaal ay baat la yu fi nekk moom ba noppi waaye da ngay ñëwaat doon boroom xam-xam bu mag bu am yenn daayoo yi loolu da lay ma baat yi ngay jëfandikoo yow ci si biir baati arab yooyu fi nekk lek léeg baat bi nga jëfandikoo moom mën naa doon baat buñ baaxoon a jëfandikoo ci nangam waaye yow nga jël ko jox ko ci maneen maanaam moo xam ne moo la tax a jóg saa yoo ko waxee Sëñ Tuuba radiyallahu anhu ku ku ku yéeme la ci wàllu googu daa am ay concept boppam ay waxiini boppam yoo xam ne faw kuy liiru mbindam baax na nga jéem koo xam ba noppi ndax boo ko xamut mën nga liir am mbindam déggee ko fu bokkut ak fi mu waxee loolu bari na loolu ñu muy dal ñoo xam ne dañuy lir ci mbindum sëriñ bi déggee ci wax ji loo xam ne bokkut ak moom li bëgg a wax ndax li ko waral mooy dañ koo delloo ca baati cosaan ya te fekk moom am na mëneen maana mu ko jox loolu nag li la koy may bokk na ci yàgg a jonjoog ay mbindam yàgg a jëflanteeg moom ak fexe ba xool ci ay mbindam yu wuute yu bari ci ay xeet yu wuute baatu jëf bi muy jëfandikoo muy amal dafa jël concept bi alquran di jëfandikoo ak sunna ndax baatu al amal rek ci arab day firi jëf bu dee ci arab yu moderne day firi liggéey travail léegi bu ko defee mën ngaa jàpp ne sëñ bi daa bëgg a ne xam ak liggéey moo tax nga ñu bari nga dégg ñu koy waxee noonu te boobaa boo ko waxee noonu baat bi da ko gàttal ndax da nga koo tënk ci lu gàtt loo xam ne sëñ bi lim ci bëgg a jublu moom ëpp na loolu gën naa yaat loolu sëriñ bi lim jublu ci baat yii saa yu ko waxee ci mbindam wala ci li ma ci xam mooy da cee jublu jëf ju baax ju dëppoog lu yàlla gërëm ak ju mën a doon comme ni ko di jëfandikoo bu boobaa nag jëf ju baax joo ji ay xeet la yu bokkut am na ci jëf joj sa digg sa boroom la amut kenn ku ci am benn intermédiaire amu ci sa sa boroom la directement lu mel ni julli yi ngay julli koor yi ngay woor asaka yi ngay joxe jàngal xuraan yor sa kurus tudd yàlla yor sa jukki xasida xeet yooyu yëpp ci buntu boobu la dugg nga xam ne ay jëf la yoo xam ne sa digg la directement kenn doxu fi am ci jëf joo xam ne sa digg ak sa borom la gaa waaye nag day am koo koy jaarale maanaam mooy da ngay jëfal yàlla ci am mbindeefum yàlla jëf ju baax ju mën a doon lu ne jëflante bu rafet bi nga jëflanteeg sa moroomi doomu aadama di leen wax wax ju rafet di leen teral di jëflanteeg ñoom ci anam gu rafet dëkkandoo ak dëkkandoo yi dëkkandoo nu rafet ña ngay bokk fooy liggéeyal ngay jëflanteeg ñoom jëflante bu rafet xeet yooyu koy dimbale nga dimbale ko ku toll ci situation buñ ko war a xetle walla ko nga dem walla ko xetli ko xeet yooyu nga xam ne yàlla nga koy defal moo tax nga di ko def waaye daa am jëmm joo xam ne jëf ji ci moom lay feeñee maanaam diw laay defal nangam waaye bu ma ko defalee nag moom taxut waa yàllaa tax bu boobaa nag jëf jooju itam am na ñaari xeet ci biiram am na ci joj da koy def ngir wut ci ngër wut ci tuyaabay sun borom kese mu jeex wutoo ci leneen bu ma ko doon misaal waa daaira xidma bii ci masalik wala daaira nuur dareyn Euh, jaalibatul maraaxib laa bëgg a wax nga xam ne dañu nekk ci jumaa ji di nettoyer di bale di defar waxtu wu nekk buñ toolee ci jamonoy koor ñu ñëw di defar ndogu yi di ko taxawu mën a xëy bis yendu fi ba jant ba nit ñi jóge fi bàyyi leen fi ñu mën fee nekk ba minuit def fi ay heures yu baree baree bari ak mbooleem ñi taxawee taxawaay yu mel noonu muy ay waxtu yu bari yoo xam ne mënoon nga koo def faneen gañe ci xaalis bari waaye da nga koo def ngir jublu cee wut ngërëmul yàlla nga ci jublu waaye jëf ji am na ñoo koy defal ndax ñii ñëw ci jumaa jeeg di jaamu si yàlla ci barab bi ñoom nga koy defal ngir ñu jariñoo loolu ndax boo ko defutoon ab vide lay doon boo xam ne danañ aajo woo ku leen ci taxaw te duñ ko am léegi jëf jooju ci buntub jaamu yàlla gu baax gi ngay def la jaarale ko ci mbindeef waaye si jëm jëmmi borom dong nga ci wut nag yoolam ki nga fekk mu toog ci barab sax am fa lu taq nga nettoyal ko ko mu toog mën naa am bu yëkkati woon dara bëgg la koo jox nga ne ko baax na ndax jox defoo ko ngir lu mu la jox waaye da koy def ngir yàlla rek ak mboolem xeeti jëf yu mel noonu yëpp waaye am beneen xeet boo xam ne nag mooy tolloog maanaam liggéey mooy tolloog maanaam liggéey nga xam ne yow daa am métier moo man xam-xam boo man am ko di ci jëflanteeg nit ñi ñu cay jëfandiku waaye buñ cay jëfandiku da koy def ngir ñu am luñ lay jox loo déggoog ñoom loo xam dañ la koy jox nga jëfal leen jëf joojee bu sottee ñu jox lañ lay jox teewut nag loola it mënees na ci am yàlla buñ ko buñ ko ci yéenee mënees na ko ci am ndax boo ci yéenee xet li sa moroomi mbindeef yi ngay jëflanteel ci seen aajo yi ñu am ci xam-xam bii nga am wala métier mii nga am da nga ciy am tuyaaba ba noppi am ci tuyóbbu li wala fi di wax ñaar yëpp nga ciy boole mën ko ci boole ñaar yëpp foofu it déggin wu mat a bàyyi xel la ndax ñu bari ci nit ñi dañuy jàpp ne la dem daal def ko ca daayira ba wala ca jumaa ja wala ca kër sëñ ba wala ca nangam ba loola kese laa mën a amee tuyaabay suñu borom waaye sama boutique bi ma xëy ubbi ko di jaay wala sama atelier bi ma xëy ubbi ko nit ñi di ñëw ñii di ñëw ma leen di réparer seen i anciens ñii ma leen di réparer seeni oto ñii ma leen di réparer seen téléphone ñii seen nangam walla ñii di ñëw ma leen di ñawali mbubb wala nangam nga jàpp ne loola moom ab liggéey dal loolu du déggéenu diine ndax loola. boo ca yéenee te yéene ja sell jëf joo ca jëf ju nekk tuyaabay suñu borom nga cay am te du tee nga am ca itam loo jariñoo ci sa wàllu adduna loolu di wu mat a xam la rawatina nag ñi nekk ci barab yi nga xam ne ay barab la yoo xam ne waxtu na ni ñaa ngi fay dem ña ca hôpital ya ña ca yenn agence liggéeyukaay yenn yi ak xeeti yenn barab yi ak xeetu barab bu mën a doon bu nit ñi soxla woo rek di ca dem ña fa nekk surtout war nañoo bàyyi xel loolu bàyyi xel ne jëf dañuy jëf bis bu set buñ xëyee ñëw ci hôpital bi sol seen blouse tàmbali liggéey wala ñu ñëw ci liggéeyukaay ba sol seen tenue ba ñu sol tàmbalee liggéey buñ ci yéenee jaamu yàlla ci jaamu yàlla ya fay ñëw mën nañ caa am tuyaaba joo xam ne nit mën naa toog ca jàkka yor kurusam du ko am du ko am waaye nag daa laaj yéene amal yéene ci ne liggéey bii may def dama cee yéene jaamu ci suñ borom ci nit ñi ci dimbali leen yéene ci itam la ma cay amee mu cay ruus ñu ma ko cay fayee itam mu doon loo xam ne dama koy dundale sama njaboot dama ciy def lu baax te yàlla tax loolu bu ko nikki ki yéenee bu dee ca boutique ba yëgal ne bu yéene ji sellee képp ku ñëw taxaw di di waxaaleeg yow am marchandise waxaale ba ngay waxaaleeg moom yokkal nangam ma jaay la wàññil defal nangam waxaale ba sax borom xam ne dañoo xam ne atteb tudd yàlla la yor waxaale ba atteb tudd yàlla la yor kon yiw bari nga ca mën a wute yéeg ga nga yéeg di ko wàcceel nangam ca taser ba yéeg googee sax tuyaabay suñ borom nga ci am bépp jëf rek ndax doomu aadama moom ab jullit bu xamee ni muy defee addunaam jenn jëfam du neen du sànku waaye loolu nag li la koy may mooy yéene ja deme na mu war a demee ka ca hôpital ba it noonu malaat bi ñëw nga di ko taxawu boo yéenee na nga war a yéenee te góorgóorlu nag ci jëflante ba nga rafetal ko di bañ di gëdd nit ñi di leen doyadal di sabantal nit ñi di def lu la neex waaye nga yëg ne sa moroomi jaam nga jàkkaar lool di jëfal yàlla ci ñoom boobaa bépp jëf booy jëf rek tuyaaba ju dul jeex nga ci amee léeg-léeg nga dem ci barabu liggéeyukaay yu fekk am diw diw sàngam moom ñàkk bëgg lu baax ak ñàkk xam moo koy yóbbee léeg-léeg nga fekk ko ci su roq mu toog yorus kurusam wala yorub jukkeem di def nangam te fekk xamul ne jëru ko woon ci moom moom liggéeyam bii mu ne na sellal yéene ji te rafetal liggéey bi te sellal ko bu ko defee mën na caa amee loo xam ne kurusam gee mënu ko may loolu lu mat a xam la waaye nag yéene moo la koy may yéene it na ko war a defee nag la koy may mooy xam moo la koy may loolu moo tax sëriñ bi wax ne xam lu munta ñàkk la loo xam ne moo war a jiitu lépp kon saa yu waxee jëf caanam gi gii man ngaa wax ne maanaa yi yëpp la ci sëriñ bi dugalaale jëf ju baax jëpp joo xam ne ju suñu borom gërëm la moo xam joo koy defal directement te jaarul fenn wala jooy defal suñ borom jaare ko ci mbindeef moo xam mbindeef moomee am na lum la cay warlul bu ko defee muy lu ñuy tudde liggéey wala warlul la ca waaye da nga koy def da nga koy defal rek ngir jëm yàlla rek mu jeex yépp ci biir ci biir jëf ju baax ji ci la bokk waaye mu ne nag balaa cee dara xew xew nag moom faw nag xam moom na am ba noppi ndax moo lay may booy jëf jëf ju lum baax baax nga mën a fexe bal yéene ja ko war a lal man ko lal loolu lu mënta ñàkk la mu daal di wax ne ndax képp koo xam ne mi ngi jëf jëf ju baax ak jum mën a doon ak xeetu jëf jum mën a doon lu jëf ja baax baax baax lu yéene ja rafet rafet rafet bu anta ko xam jëf ja mën naa mujj doon comme pënd buñ jiir rek mooy mën naa bañ a baax mën naa bañ a baax loolu daanaa ko misaale ne ci jàkka yi mën nga ci gis misaal yi toujours léegi lañu gis koo xam ne day ñëw waxtu misaal waxtu fajar noonu laa ko daan faral di misaale waxtu fajar yegg si na ci jàkka ji fekk na nodd nañ nodd gu mujj ba noppi noddug salaatu léegi mu ñëw dang koy seen mu taxaw di julli di sëlmal rek julli ay rakk yu bari di sëlmal fekk la tax mu di ko def lépp du len lu may bëgg lu baax rek ak bëgg fàggu tuyaaba waaye nag ñàkk xam ga ca moo tax mu ci dugalaale loo xam ne dañ ko ko tere te yëgu ko yëgu ko te bu xamoon lim bëgg mën na koo am tam gën koo noppal boole ci mën naa nekk loola mooy bu fekkee ne da ñëw ci jàkk ji te nodd nañ fajar ba noppi nga doog a yegg si jàkka ji wala bi nga yegg si ñu ngi nodd kon mooy fajar jot na boo yegg ci jàkka ji yow genn julli dong nga fi waroon ne julli ci julli naafila muy ñaar rakkee fajar boo yegg taxawal julli ñaar rakkee fajar boo julee ñaar rakkee fajar boo sëlmalee toogal bañ taxawal julli suba gi nga jóg ànd ci julli ga waaye amut ñëw naan damay nuyu jàkka bu ma noppee doo julli ñaar rakkee fajar def na déedéet waxtu woowu du waxtu wu ñu bere nuyu jàkka di ko julli ñaar rakk waaye nuyu jàkka ji da koy dugal ci biir ñaar rakkee fajar yi boobaa ñaar rakk yooyu nga julli mu ñaar rakkee fajar da ci am yoolu ñaar rakkee fajar yi mu doon mu yool bu rëy ndax yonente bi alayhi salaatu salaam ne woon na moo gën àdduna ak li ci biiram waaye da ci am itam yoolub nuyu jàkka kon mooy ñaar rakk yoo xam da nga cee am yoolum ñeent rakk yu bokkut boo xamul nag da ngay jàpp ne gannaaw nuyu jàkk dañ ma ko digaloon rek da ngaa jàpp kon nuyu jàkk moom dañ la ko digal ak waxtu wu mën a doon te fekk nuyu jàkk beral ko ñaar rakk am na waxtu woo xam ne moom du ca mën a nekk te wii ci la bokk wii moom mënu ca nekk te mooy gannaaw boo xam ne faja jot na nga ñëw ci jàkka ji nuyu jàkka ji doo ko beral ñaar rakk waaye yéene yéene ji da nga koy dugalaale ci ñaar rakkee fajar yi ngay julli rek mu jeex benn yoon foofu nag gis nga kon ki xam day ñëw moom def lu nopp le day ñëw rek taxaw julli ñaar rakka toog yow nga kër kër julli fi ñeent rakk li nga bëgg moom dana ko am te yow mën naa am nga am ko waaye itam defaale nga ca luñ tere ndax waxtu woow ngay julli ñaar rakkee fajar ñaar rakkee jàkk nuyu jàkk ko ber waxtu woowu dañoo tere ku fi julli genn naafila guddul ñaar rakkee fajar loolu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax bu fajar xasee jot bu kenn julleeti genn naafila gu may ñaar fajar kon loolu lu mat a bàyyi xel la naafila yi ñu fa maye waar rek xanaa mooy koo xam daa julliwutoon safaak witar ngir ay nelaw ko noot wala yooyu boobaa mën na ko faa dabaatal waaye ñaar rakkee fajar moom déedéet kon loolu day wane solo si nga xam ne xam am na ko bu fekkee ne moo jiitu jëf waaye mu teg ci itam moom sëriñ bi ne waaye nag solo si ma wax ci xam-xam bu mu tax nga jàpp ne kon xam-xam moom mooy dayo bi mooy mbir mi daal bu ma xasee am jeex na ndax am na ñu bari ci nit ñoo xam ne foofu la leen seytaane wore kër kër yi nañ jàng ba sonn ci ba am nañ xam-xam waaye dañ koo am ba noppi nag te fas seeni loxo. jàpp nañ ne liñ liñ doon wut am nañ ko daal jeex na foofu lay am te fekk xam-xam du lenn lu may ab jumtukaay rek la ab jumtukaay la jumtukaay nag daa am lu ko tax a jóg muy jëfandikoo ko ca fañ ko war a jëfandikoo ak nañ ko war a jëfandikoo boo ko amee ba nopp te jëfandikoo woo ko amul la njariñ amul njariñ man samay bët daa leerut lu ma daan nangam mètre dootuma gis-gis bu leer waaye dem nga ca médecin ba mu xool ko ba xam ne feebar sàngama la dal nattal la ba bindal la ay lunettes yu tolloog yow yoo xam ne boo ko takkee gis bu baax ni nga war a gisee nga ñëw jël lunettes yi lem def ci sa étui denc sa poche di dox ci mbedd yi dama ko ñëw cooway bari waaye yor ay weer denc ko du tax nga gis li nga war a gis ndax jëfandikoo woo weer yi te weer yi denc ko tax koo jog waaye takk ko moo ko tax a jóg xam-xam noonu rek la mel jàngi nga ba am nga xam-xam teg ne jàpp na nag moom léegi li ci des moom da xool nu la soobe rek loolu moom xam-xam loolu tax koo jóg boobaa am nga niitukaay goo mën a niite yoon wi ngay jaar waaye jëfandikoo woo ko boo moytuwul mën ngaa jékki-jékki sërëx sërëx ci mpax mën ngaa dal ci mën ngaa dal ci lu nekk kon moo tax xam-xam it ku ko am nee na te jëfewoo ko manees na laa misaale na ko alxuraan misaale mooy mbaam muñ saf ay téere lu mu yàgg-yàgg moom téere keneen a koy jël jariñoo ko waaye mbaam moom du yàgg mukk bam jariñoo li ci téere yi ndax mënu ko jariñoo kon xam-xam jëf ko tax a jóg jëf nag ci anam yëpp nag ci anam yëpp loolu nag bu ko waxee lam ca jublu la ci jiitu mooy nga xam ne xam-xam lim war a jur ci yow nit ki mooy defar la loolu looloo ko tax di wax jiitu looloo ko tax di wax xam li ko war a tax a jóg mooy gannaaw boo xamee ba noppi xam nga defar sa melokaan defar sa jikko defar sa xol defar sa yéene defar say bëgg-bëgg nga fexe ba jéem a tàggat sa bopp ci lépp looy def xool ko ba xam ak la nga xamoon nuñ la ko digale ak luñ la ca wax nga jéem a teg sa tànk foofa luñ la ca tere nga jéem a maanaam teg sa bakkan ngir jéem ko koo tere loolu mooy li ci jiitu buñ ca noppee nag la ca tegewaat mooy lu ci doon ay jëf yu ñuy jëf ci jëmmu buñ na laa del bari looy tudd yàlla xamal ne loolu aw yiw la kon dee ci góorgóorlu waaye mboolem laa laay alxuraan yi teg yi digle tudd yàlla lu bari xam nga ko waaye fusoo ko ndax da ngaa tayal tey it fasoo yéenee xeex ak sa bakkan ngir jéem a dindi tayal googu man ngaa jóg di di di di ko nettali nit ñi nag man nga ko di di di waxtaanal nit ñi di leen ko jàngal di leen lépp di leen ko wax ñoom ñu di ko jëfandikoo waaye yow defoo ko boobaa da am lu bari lu la wàññi loo xam ne boo legee da nga ko xam. niki noonu itam mbooleem luy lu baax lu mën a doon rek nga fexe daal ba xam-xam bi. defar sa jikko defar sa melokaan defar sa xol nga yéene ñëpp jàmm di am pas-pas bu baax ci lépp looy def am ak dëggu ci jëpp jëf jooy jëf am yenn ju sell ci lépp looy def itam di ca bàyyi xel yàlla rek génne itam bëgg-bëggee adduna yeeg yittee adduna yeeg poñete adduna yeeg daraja yeeg yooyu yëpp nga génne ko ci say jëf sa kem kattan loo man te nag ba lépp luñ la digal itam nga jëm caa teg sa tànk jéem koo jëfee sa kam kàttan boo ca noppee nga boole koog nag di jottali bu dee ko mën a jottali nga ba ñi war a xam ñoom itam ñu mën a xam mën a teg seen tànk ñoom fa nga xam ne fa lañ ko war a teg lépp loo xam ne nag nit ki xam na ko lu mu bari bari bu fekkente ni bii ne taxut mu jeexital ci moom jeexit yii sëriñ bi naa na lu mu bari bari xam-xam ba du amal nit ki njariñ te bu ëllëgee nam ko waxe woon ci Masalikul Jinaan xam-xam booba munut a dox diggam ak tabbi sawara bu ëllëgee yan ci la salaam kon ñu taxaw foofu Baye Cheikh bala Balla yegsi na ba subaak jàmm ñu yeggale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.